في القلب في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rafet nañ njort ci moom lool ndax li waral ñuy mën a ñuy rafet njort ci moom lépp daa daje ci moom ndax la ci jiitu day ab jullit euh, te dëggal ko ba ca topp mu jox boppam Serigne Touba toppam Seydina Ousmane ba mu ko noppee gis mu yeslu ci Cheikh Ahmadou Kara mu doon taalibe boo xam ne nag lañ ko xamee te di ko ko dàkkantelee mooy murit ndigal ndigal jëfe loolu lañ xam ci moom noonu la daan dunde ba bis bi yàlla def ko ci moom mu doonoon jëmm joo xam ne nag monument la woon euh, ci yoonu murit mën nañ koo wax ndax dafa doonoon jëwriñ boo xam ne ñi defarut a jaaree ci moom mën a liggéey ko tey di ko lu ay junni junni doomu aadama la kon kooku mën nañoo wax ne royukaay bu mag la Medina gi ngeen nekk te yéen ngeen di def seen liggéey bi rafet bi gis na doomu Medina la ngeen ñëw fi da ngeen a xam ci moom pas-pas ak defar ndaw ñi ak doon taalibe te du ko dëggal euh, xare ci ba bis bi fekk si ko ci moo tax ngeen ba seen yitte fu teew kon yéen it ñu leen koy jaal bu baax rafet nañ njort ci moom di ko ñaanal rek fu mu jëm mu daja fa ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku tedd ki euh, ak maam Cerno bu mu fa gis dara lu ko naqari te it yàlla yokk ay leeram ak xéwalam njaboot ji mu fi bàyyi yàlla teg leen loxo. xol bi xol yëpp fees waaye nag àdduna nii la rek demal maa ngi ñëw la ba tax na xam na kàddu gi du ci mën a gudd lu dul di ko ñaanal rek waaw di ko ñaanal teyit di wax mbokk taaliba yëpp ñu ci moom ndax Cheikh Ahmadou Kara sant na ko gërëm na ko ba bindal ko ab taalif sax ba ku ko dégg dina xam ne lii euh, mérite la du change waaw ndax da ko jaayante bu baax a baax a baax sëriñ bi boole woon ñu nag ci liggéey bi ci lu bari ma xam ci moom lu bari mu nekkoon sama xarit lool nag waaw ba tax na nag euh, xol yëpp fees na te wax dëgg yàlla mm, ñaanal ko rek lañ mën waaw li ci des nag li ci des nag mooy ñaan taxawu njaboot ji wax taalibe yi nañu góorgóorlu ba fa mu tegoon tànkam ñoom ñëpp ñu maase teg fa seen tànk te xam ne eh, li fi dara moom ku ci bëgg dara faw nga def ni moom waaw boo tax rafet nañ jortu ci moom bu baax yéen sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax. warhamna bilqur'ani alkarim wanfa'na bil ayati wa dhikri alhakim waj'alhu lana hujjatan yawma ddin allahumma anfa'na bima sarrafta fihi min alayat wa dhakkirna bima darabta fihi min almasulat wa kaffir bi tilawati 'anna sayyi'ati innaka mujibu da'awat allahumma taqabbal minna khatma alqur'an وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته gërëm yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di yeesalaat suñu njëbbal ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul mi suñu yaakaar tali ëllëg awale ko ci suñu wasila Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni suñu ñëwee tey nag Medina ñu ne bés yi Zeyne Ousmane jëw dañuy jëy sun bi la ñuy 313 yi nga xam ne ñoo symboliser ñi demoon Badar ak yonent bi alayhi salaatu wa te Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noo leen ni jiitaloon ko ci wax dëgg yàlla suñu teewaay dafa war ndax euh, Zeyna bi muy dund bare Pastef bare pas-pas doon taalibe bëggul woon lu dul taalibe lu sëriñ bi joxoñ rek mu daw dagg ko lu mu joxoñul sax ci xelam demee te muy rafet te lu rafet rek lay doon mu def ko ba mu mat sëkk moo tax euh, marsia bi ko sëriñ bi defal demb ah dal na xel de ndax taalibe bu liggéey ba wàcc sa euh, jëwriñ di sa wasila euh, ñaanal la taalifal la yombul yombul ndax suñu xel dal na bu baax ci moom yàlla bu ko cat jiitu yàlla bu cat topp ci moom yal na yàlla teg loxoom ci njaboot gi ñu mu doon liggéey fii di ko liggéeyal waa kër Cheikh Ahmadou Bamba waa kër maam Thierno Birahim waa kër sëñ Ousmane Mbacke Noreyni ah, waa kër Cheikh Ahmadou Karam Mbacke Noreyni yàlla na ko fa fekk def ci yàlla defal ko ci lu kawe njortam teg loxoom ci njaboot gi yàlla bu mu gestu ginnaawam te nañ ko yéex a fekki te suñ koy fekki yàlla nañu yàlla may lu jubóog suñu borom jubóog suñu wasila ni ko yàlla defalee ñu leen di gërëm njaay di leen ñaanal seen tele bi yal na ko yàlla yóbbu ca kanam kanam ñu di ko seen mel ni soroor ba ci Touba. moom de Cheikh Ousmane laa koy wax ndax su ma kooxee sam bopp laa ko wax waaw su ma kooxee sam bopp laa wax ndax daara ja man nga sosoo fële gis nga tabax bee ngay seen baraag la woon foofu fooy daara ji daara ja ba mu taxoo fii la dikk garab gi xam na ci dara mhm. néeg bee xam na ci dara. du dëgg. dëgg la Kine mii xam na ci dara. dama wax ne dugub. benn loxob areen. mën na ko ji. li fi nooree ni Cheikh Ousmane Mbacké ji woon. ci ñoom sëñ Xaadim gisee. jox leen ko ji ko fi. ni ndakaaru gii. gott bu lëndëm la. waaye Thierno daf ma jox daba. ni ma naa gor àll ba mu seet. ma yaakaar ni seet na tey. kii ki ne la keroog ba sëñ bi ne nangam ci man moom lalam la xale yi sempi ñëw tegal ma ko fii dinaa la ko delloo waaye bu doon xam nga aareen Baye Ousmane Mbacke danoon dana gor tool bi waaye ma ne sëñ Xaadim tool boo ko goree dindi ya ca nekk ak buud ya xanaa di nga ca ji gis nga benn këmbus aaree boo ko jiyee. xanaa benn nit mën na ko ji. waaye cey bu déqi jotee. dana xeeb benn daal. danoon gor du xam lépp wax ko. sañ naa ko def naa ko di as gor moomu ko. man daal lu ma wax Cheikh Ousmane sama bopp laa ko wax. ndax bu doonu woon nii. man du ma nii. ëtt bii bi ma koy yéeg. di fi nekk ñii ñii di samay mag seeni i ndey di sama ndey luñ defal seeni i ndey rek def na ma ko ñoom. fii kii daa mel ni sama mag ju ma bokkal ndey ak baay dafa mel ni xori faa la taxaw li ma séq ak moom bu ñemee dajji lalam fii fii laa ne ci baraag bi xale yi dajji lalam indil ma ko fii te ngaangul da a ànd kon jërë ngeen jëf Ahmadou في القلب في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون